Fass vraiment mooy ñëw te nit ñu en net gis nga jàkk ji presque tëjoon nañ ko ba mënatu ko woon te borom gilet ba léegi gis élément am la parce que dafa ñëw indi motom ay motom indi gasoil am indi essence am pare indi équipe am macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax quartier bi ñëpp kontaan nañ ci moom notable quartier bi délégué ñëpp waaye bi mu amee daal yow xalaat askan bi askan bi nekk ci jafe-jafe ñëw ñëw dimbali kon ñu ngi koy jaajëfal baax di ko ñaanal yàlla dafa ko taw